donc tay dañ fi dajé université Amadou Mahtar Mbow parce que at bu nek buñuy ñuy salon international des mines euh dañuy jagalel ben euh xey bo xamné dañuy def lepp lo xamné dañuy tagat suñu xalé yi nga xamné ñu ci université yi euh sen xam-xam commencé na match ci yenn euh, pexé yo xamné ne mën na tax dina gëna a euh exploitation minière yi ñi def mais néna né lolu ñuy jëmbat mën na servir exploitation minière yi mais mën na servir suñu administration yi parce que lépp loo xam ne innovation la création dafa doon loo xam ne moom mooy avancer loolu le monde moom mooy tax yenn jafe-jafe yoo xam ne am nañ ko xamuñu nuñ ciy génnee innovation boobu wala création boobu mooy tax ñu am ay solution yoo xam ne dinañu mën a trouver des pratiques yoo xam ne mooy tax lii ñu bëgg comme résultat ci secteur yooyu mën nañ ko am loolu moo tax ñu ne nañu jagaleel Euh, euh, Simbini loo xam ne suñu xale yi la ñoo xam ne ñu ngi ci université yi université yoo xam ne dañ leen tàggat ci mbirum xam-xam technologie ak yooyu ñoom ñu jéem a gëstu ku nekk li nga amoon comme xalaat ñu boole leen ay ñoo xam ne ay coach lañu ay nit yoo xam ne seen xam-xam dafa xarañ jëm ci secteur bi ñoo ñu gën leen encadré mais comme ni ma ko waxee ci kàllaama tubaab euh, organiser ko lu rafet la lu ñuy rafetlu bu baax a baax ak ñi ñu ci accompagner yépp li gën. comme ni ñu ko président di santé mooy ñii nga xam ne euh, ràññee nañ leen seen xareñ dañ leen war a continuer di leen jàppale di leen dooleel pour que loolu ñu gëstu mu bañ a doon loo xam ne rek dañ leen ciy jox prix jël ko ñu ranger ko ba nga xam ne loolu dinañ ko jël boole leen ak ñeneen ñoo xam ne xarañ nañu bu ñu amee ay moyens yu ñu leen tegal ñu tegal leen ci bana tax ne mu loolu mooy tax ne waa DER ñu ngi fi ak ñeneen euh, ñoo xam ne ciblé leen ñeen pour ñu ñëw nga ne mën nañ am possibilité pour que yooyu innovation mu mën a am financement bu financement dina tax ne jeune dina ci gis mais ñii di ko war a tamit dinañ et dina doon loo xam ne lu am solo la ci dox bi nga ñu développement émergence